tey dañu organiser benn euh, meeting ndax dañu bëgg euh, dajale nit ñëpp gën leen xamal président Macky Sall réalisation yi mu def ci dëkk bi bu ko defee ñu mën a xam ne dañ ko war a joxaat deuxième mandat pour mu mun a yeggale liggéeyam moo tax suñu mouvement bi tudd yeggale ak Macky ndax bilan bi euh, ñëpp xam nañ ni que c'est bilan boo xam ne c'est défendable ñun bi ñuy def proximité amuñu problème ndax dañu jël rek réalisation yëpp teg ko ñu bëri nag xamuñu ci woon yu bëri mais biñ ko xamee rek ñu doon am xel ñaar ñëpp ñëw nañ bokk si ci mouvement bi am nañu rallié tamit ay yeneen parti ñëw daal di bokk ci mouvement bi donc suñu objectifu daal mouvement daal mooy jàppale président Macky Sall mu am deuxième mandat bu ko defee liggéey bi mu mun ko yeggali Sénégal mën a émerger loolu nga xam ni moom la yéene Sénégal mu yéene sénégalais yëpp yéene ñu ko ñun waa réew mi. waaye nit ku mel nii su amee tamit bëriwul C'est un meeting de fédération parce que commune Fann Point E Amitié zone B dafa yàgg am benn particularité am boo xamante ne élection présidentielle sa yu amee dañu xool ne ko euh, suffrage yi ni mu exprimé woo c'est pas tellement en faveur du parti au pouvoir mais nag dafa am une particularité tey jii parti au pouvoir bi je crois savoir que day inutile sax ñu war a lister war a énumérer wala nommer li mu fu def donc suñu jëlee loolu noonu yëpp war na mën a tax commune bi éveillé wu yeewu à travers meeting bi à travers euh, euh, démarche de proximité yi ñuy def bu ko defee ñu mën a voter le président Macky Sall au premier tour mu jàll si jàmm si salaam si yar si teggin bu ko defee à partir du cinq Sénégal yëpp delluwaat commencé liggéey si jàmm ak salaam. je pense que li Macky réalisé ci réew mi weddi gis bokku ci ñun dañ koy sant en tant que femme parce que tey fédéré na jigéen ñi. via tey association yu yu am via aide yi am santé bi toogul vraiment toogul ci éducation li ñuy wax tamit mooy euh, on peut dire que ne aussi euh, sur le plan même des infrastructures am na évolution ci wàllu mbay mi parce que mbay mi tam ça touche les femmes parce que bu ñu mbayee mbay baax dugub am ñebbe am jigéen ñi jox seen i doom ñu nekk donc ñun dañuy gërëm Marième fay Sall dañuy gërëm président Macky Sall di ñaan mu gañewaat mandaawam bi ba àggali li nga xam ne moom la tàmbali dajee c'est parce que jàmm ja moo bari jàmm ci la mag xëj maa ngi ñaan yàlla yal na yàlla saxal jàmm ci file di nuyu seen beneen rakk bu ñëwagul dama defe ne rek dafa ñëwagul muy Abdou Karim Fofana maa ngi koy nuyu di ñaan yàlla ànd bu rafet bi ñun commune bi ñàkkuñu dara ku am 3DG tubarkalla macha allah yal na yokku yu mel ni yéen lu ngeen am bokk ko nit ñi. lu ngeen am teral jigéen ñi projet bu fi ne def ngeen ca la ngeen am kon liy ngor mooy bu ngeen toogee ñi wax ko bu ngeen wanee gannaaw ñi wax ko may gërëm nag gan seet daas seen daas laa wax président Youssouf Fall ngi nii daasa ngi nii seen secrétaire général Ndeye Jama Ndiaye xam naa leen ndax yéen a sol seen dàll ñëw ba sama kër ne ma ñëpp ci lañ bokk waaye yéen ñi yow mii yaay marraine journée bi ma kontaan ci loolu ànd ak une forte sañse bi rafet na nit ñi tàcc bu fekkee sañse bi ànd ak Adja Binta Ndoye ànd ak association femmes ci point yooyu yëpp ñu ngi ni mën naa leen lii kon kontaan nañu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu seen wet di leen jàppale di nuyu honorable député ñi fi ñëw di nuyu Nafissatou Diop mi fi ñëw yal nañ yàlla may victoire ñu fêté ko le 24 février di gërëm Mariam Faye Sall mi fi jóge barka Dembo Ndiaye defal ñu lu nekk. trois ans yoo xam ne jël nañ trois cent mille sénégalais di leen jox bourse de sécurité familiale chaque mois ñu leen chaque année ñu leen di jox cent mille francs premièrement. deuxièmement ñu jël en charge xale yi nekk ci biir ak mag yi nekk ci biir ci couverture maladie universelle ba pare dugal leen école loolu yëpp boo xaymaa liñ ci def ci ñetti ñetti at yi mooy un mois de fesman comparé comparé leen bu baax les régimes comparé leen bu baax ñun li ñu proposé ak yeneen candidats yi ñu proposé am na candidat nag yu fi nekk am na quatre candidats amul kenn kuy proposé lenn li ñu proposé mooy ki Sall na fi jóge mais bu fekkee ne daf fiy jóge ñu teg li gën li ma wax nii parce que une partie rek laa wax parce que temps bi permettre na li mu leen di wax rek mooy mooy li René wax lii dañ koy jàpp teye ko dugal ko suñu cerveau bi dem dugg ci kër yi dugg ci euh, quartier yi waxtaan ak nit ñi wax leen ne aujourd'hui le salut du citoyen sénégalais le salut des sénégalais c'est que le président Macky Sall ait un second mandat. gis nga yor nguur déglu leen mu baax li ma leen di wax yor nguur duy caaxaan. mandaa bi di ñëw mandat juróomi at la ku ñu fal boo amul expérience état di nga fa toog ñaari at di jàng nguur du fu ñuy stagiaire te man ñii ma gis ci télé bi yëpp ay stagiaire lañ doyen Pape Sagna yow xam nga ci dara keroog rek laay waxtaan ak ma docteur Malick mu ne ma mairie sax boo ko jotee di nga toog at moo xam ne doo xam loo def yor nguur te defaroo sa budget defaroo ko sa bopp rek problème la li am nag mooy juróomi at yi ñu jëm. ana kan ci candidat yi nga mën a fal 24 février le cinq xam na kan lay nommé xam na ban plan lay def Macky Sall kese la ñun waruñu perte temps fii ñu toll fii ñu toll mooy Macky Sall rattrapé na retard yu bëri yu Sénégal am corrigé na lu bëri fi ne nii nag ci accélération lañ toll accélération boobu nag ki ko miin xam ko def ko ba tàyyi jox ñu ndekki bu ñu diggee añ war nañ ko ko jox 24 février. wala fii nag su ma juumee ngox ma wala fii dégg naa dafa am baat bu ñu wax nee nañ nee nañ ku xeeb sa doxinu fas ba bàyyi ko fi dem uti leneen di nga yenul sa bopp say bagage nee na ku xeeb na ku xeeb ku xeeb sa doxinu fas ba nga rey ko dem uti leneen di nga yenul sa bopp say bagaas te lii ma fi gis yëpp Macky Sall rek a ci nuri fas leneen li yépp nuru nurul fas rek am na ci premier ministre yoo xam ne essayé ngeen leen am na ñoo xam ne grand pape Mayel nee nañ secrétaire sax mosuñu koo am xëy na dañu yor réew service sax mosuñu koo diriger man mii nga xam ne sama ñettu patrimoine ñetti atu patrimoine ba tey ndik buy métti ak ak béjaaw laa ci jëlee donc nañu xam bu baax juróomi at yi kan lañuy jox suñu réew ndaxte juróomi at yu pétrole di ñëw juróomi at yu gaz di ñëw juróomi at yoo xamante ne dañu war a fexe gone yi di gën a jàng liggéey gën a a gën am nañ ko jox ki am yërmande ak ki nga xam ne du foo loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen gërëm di leen sant. man de euh, la may wax ndax démb maa ngi woon Thiaroye di décrocher un grand responsable de l'opposition parce que li ma ñor du Pape Mayel Diop président Macky Sall nag ki tax nga gën koor te tëgën ku ne si sa sang la moo ñu def lanu doon bon ña ko bëgg foqat ci loxoom dañ ko bëgg foqat ci loxo jëlal ñu jaral nag lu nekk di ñaan nag ci barke Xaadimu Rasuul le 24 février incha allah yàlla may ko ndam lu lew te mu yeggale yéeneem yeggal ko ci yéen si ci commune yëpp di wax waa amitié Fann point 1 maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax kenn jox leen xaalis ngeen génn bi ma ñëwee sànq gis naa fi qualité gis fi quantité donc loolu am solo ta ak seen mouvement bi li ngeen di def yokku leen ci Malick Noël sant nañu parce que ku la xam-xam ne ko dëggu nga boo demee yow ba def say analyse xool ni kat ci ñu fi nekk ñëpp président Macky Sall moo doy da nga def lu tax nga war a mën a ànd ak moom bon ñu ngi lay remercier ci ni nga renforcer la commune ni nga renforcer le président Macky Sall di la wax ni ñun kat ku ñëw di jàpp président Macky Sall dañ lay jël teg ko suñu kanam ndax notre modeste personne importe peu et aujourd'hui la personne importante c'est le président Macky Sall maa ngi leen gërëm di leen sant. président de la république dafa liggéey liggéey boo xam ni dañ dul nangu muy taxaw ndax émergence bi mu bëgg Sénégal nekk un pays émergent ñi ngi ci yoon bi. man dama naan toujours en route vers l' comme nag c'est en route vers l' émergence fa dañ ko war a jox deuxième mandat moo tax ñu ne yeggali ak président Macky Sall mu mun a continuer ay réalisation ndax lim fi nekk juróom-ñetti at yi wàññi na courant bi kenn mënu fi wax ne courant yokk na da ko wàññi wàññi carburant bi dund bi yokku coupure yi dañuy fàttali fàttaliku tuuti 2012 nit ñi dem daan génn di taal pneu yi ci mbedd yi ndax ñàkk courant xale yi di jël bateau yi di dem ci gaal bi dégg nga ñu naan immigration clandestine bi jommal nit ñi loolu yëpp ci Macky Sall la fi deñee gisatuñu xale yi di jël gaal yi courant bi wàññeeku na te day gën a wàññeeku ndax ay projet centrale solaire yee ngi fi ñu ngi dox sàncu mexe ñi ngi am kawel ñi ngi am kawoon ñi ngi am ten merina li may wax dañ ciy teg seen bët lu ñu mën a vérifier la donc courant bi dafa nar a gën a wàññeeku gaz bi day wàññeeku dund bi day gën a wàññeeku santé bi ñi am zero ba cinq ans wax nañ ko fii léegi xale yi du ñu fay mag ñi du ñu fay ku la jàppale nag ci sa njaboot jàppale la nga faju wàññi la dund bi wàññi la courant bi war nga mën a am yaakaar ne boo ko bàyyee mu yeggali émergence bi ñuy wax dina am ci dëkk bi kon boog nañ jàppale magi Sall jàppale Macky sàll nag mooy jàppale Marème fay Sall ndax man Marème Faye Sall moo ma tax a dugg ci politique bi Marème fay Sall dañuy ànd ànd boo xam ni politique boolewuñu lu mu dugg nag dama ciy dem ba seey ba jeex ndax munoon na ni tey première dame laa damay changé ñu bëree noonu la ñuy def maay première dame boo ñëwee sama kër da ngay demander audience def ko ak sa këram laa am nu ma neexee. Marème Faye amul benn changement te nee nañu nag derrière chaque grand homme yaa une grande dame Marème fay sàll bi mu fi ñëwee bërki Dembo Ndiaye dafa gis ku toog ci biir mbooloo bi mu ne ma tabara kii dafa mel ni ku feebar kii daal mel na ni am na dara lu ànd ak moom loo xam ni vraiment ni ma gisee kanamam bi neexu ma dama bëgg nga xoolal ma ko lan moo ko dal ba ma demee gis ndaw si ndaw si ne ma dama feebar sama waa kër ñëpp seetaan ma Marème Faye ndox ma xaalis bu takku bañ ko joxee ndaw si da doon lox maram ne ko na nga faju bu doyul nga xam ma dolli kuy def loolu war nañ ko mën a jàppale waaw président Macky Sall nag lu mu mën a réaliser rek maram a nekk ci ginnaaw di dalal xelam ba mu jàngee ba pare dem université mënoon na continuer waaye defu ko dafa arrêté ay jàngam ne day uuf njabootam day jàppale borom këram day jàppale néew yi doole yi donc man dama naan jaaraama Marème Faye Sall ñun ñi jigéen yëpp nañ topp ci ginnaaw mu dalal suñu xelu président mu mun a continuer réalisation yu muy def Sénégal jëm kanam jërëjëf maa ngi remercier nag ñi ma organiser yëpp waaw waa mouvement bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant commencé war Youssou président bi fàttewuma jama menoir Poulem Dioum dégg nga vraiment macha allah. ma ni ko daa seen ak ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp